Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you. yàlla doon waxtaanee léegi nga dugg si léegi rek léegi rek dafa am benn soxna su nekk France chrétienne la sax Marie la tudd moo doon moo doon rafetlu seen doxalin rek ak di santaat ku ku baax ki rek di expliqué daal nañ Sénégal xamuñu sax waaye jeune daal jàpp na ni kenn bañu ko waaye bu amee ñu ko bañ ni ko ñu ko bëgg ëpp fuuf daa ndegam ay chrétien ñoo koy bëgg di ko war maa ngir li ko yàlla defal fan rek nga dugg si. alhamdulilah <laughs> rajo bi àggagul sax nga dugg si. alhamdulilah macha allah.